mbégteeg bànneex la ñuy am saa su ne di ànd ak yéen rawatina ci seen émission bu mag bi ñu dippee Ramadan chez nous Ramadan chez nous nag bu leen ko déggee du leen dul émission boo xamante ni dañ ko consacré uniquement ci koor gi waaye bëgg a ànd ak yéen def 20 minutes de détente yoo xamante ni duñ ci yam non seulement dinañ leen informé dinañ xool ruq-ruqaat yi nga xamante ni moo nekk ci biir société bi xool la fay njariñ ñu indi la fa xamante ni baaxul ñu daal di dindi sànni li nga xamante ni aussi mooy la cuisine ak santé sonné ko indi ci émission bi lé wayé sonné it dinañ ko tejé li nga moy leçon du jour ak mam Diaw it toujours di endroits nga ñoo suivre à travers ce groupe WhatsApp toujours di and ak ñom non seulement ñoom dañuy joxe seen point de vue seen i suggestion ak ni ñu gisé li nga xamanteni moy émission bi lé alors waxon na leen ko nak émission bi toujours rek dama ci and ak ay jongoma majeur ñu tak ba yaq di leen jox li nga xamanteni ni leen gënal ndog ba paré nek suñu kër wara waxtaan ak yeen ki nga xamanteni nak waxon na naa leen ko moy euh, Fatouma Baldé ñu and ak mom toujours rek ci li nga xamanteni moy euh, société moy suñu mi Société tay nak mu def ba mu baax machallah Fatou nuyu nañu. maa lay fay Thiat. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm alhamdulilah. la askan wi. waaw maa ngi lay nuyu. ñu nuyu ñu ma bokkal plateau bi. ñu ngi lay fay kontaan ci yéen saa su ne rek. tey nga indi thème ban thème pour société bi. waaw mu doon la am solo tey kon dañ lay wax tegal foofu sa loxo ñu ñëwaat léegi incha allah ak yow ginnaaw bu ñu waxee nag li nga xamante ni mooy société ndax kenn mënu ne pays te waxoo la nga xamante ni moo fa xew dañuy ànd ak toujours ñi nga ki nga xamante ni moo ñuy doxal lépp loo xamante ni rek suñu wàllu wér gu yaram da koy soxla mu indil ñu ko ak lépp loo xamante ni dañ koy war a jëfandikoo muy suñu wàllu biir aja kañ ko dénk nga xamante ni mooy suñu expert mooy ajaratu Adja Mané Adja nuyu nañ la

di dellu di nuyu tamit ñi ñuy seetaan. waaw mm-hmm. ah, tey nag moom. Mm-hmm. li ma leen indi lool mooy. Mm-hmm. gingembre laa leen indi woon. ñu koy wax jinjeer ci olof. macha allah ah, li tax tey nga choisir mais ci kanam ñëw pour xool la ak lan moo tax nga indi ko. Aja waxoon naa leen ko la kër gu nekk dafa soxla li nga xamante ni mooy mère de famille ba tax na moom dañ fee toogal kilifaay ñëpp te saa su ne mu ñuy indil ay thèmes yu am solo yoo xamante ni da koy yëkkati rek pour di ko joxe ay leçons du jour kooku nag mooy ajaratu sëñ Nadia maa ngi ci jàmm. alhamdulilah. yaa ngi def jox ma man. merci beaucoup gis naa la. nga logowee ba pare. waaw gis nga. ah parce que yéen ay jàkkaarloo. suñu bopp suñu bopp yi dañuy logoo fii ndax saa buñ fi logoo sañ say di gën a dugg. muy noonu. ayca nuyoo la gas kër yi. waaw asalaamaaleykum suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp. di nuyu ma bokk ak plateau gis naa leen seen naa rek lay toog. dégg nga waaw di wax ne kontaan nañ trop dajawaat ak ci beneen numéro.

ñëwul trop tard. waaw parce que genre geste yi bu koy defati. Hmm. ko def avant problème bi am mais du xaar am mu doog a def hmm. solution. Hmm. mën na nañ ko sóoraale. xam ni étudiants yi. dañuy soxla xaalis. ci xamante ne dañuy jógee. ci yeneen région yi di ñëw amuñu fi parent amuñu fi dara seen bourse lañu yaakaar ñooñu nag war nañ di leen bàyyi xel toujours daal Adja Mame Diaw loolee loo ci xalaat moom waaw comme ni ko Adja waxee rek du lu ñuy applaudir. parce que vraiment mbir la moo xam ne dafa war. mais bu fekkente ne dañuy xaar ba xale yëngu ba yëngal ñu soog a jóg. loolu tax ñu tere ko. jàng daal dafa nekk loo xamante ne nii réew moom amul kenn maara day taal kenn amul réew moom fu mu jëm. kon que daal priorité la. nañ ci taxaw dimbali xale. ñuy jàng te te wax dëgg yàlla. jëmale réew mi kanam. dëgg la ni société yow mbir mi loo ci wax yow tamit. waaw comme ni ko sama naataango yi waxee. rek. waaw parce que am na loo xamante ne koo war a def avant. wala ñoo xaar ba affaire yi ñu continué jonn. te luy xew-xew ba pare. ñu bëgg def. du safee. xam nga dina neex nag nit ñi. xol mais du safee. parce que lu nga xamante ne da nga ko waroon def avant. bàyyi ba li am am. tamit loolu du am sens daal. nag ñu ngi koy rafetlu bu baax. alors euh, loolu la nga xamante ni la kenn ku nekk ñi ma bokk ci plateau bi xamle. waaw ma nit nag ma ciy dolli rek ne loolu dem joxe nañ ko. mu toll ci xaalis bu takku nañ ko teel a dugal fa nga xamante ni euh, fa fa la war a nekk en plus xale yi teel cee jot maanaam dina doon tamit lu am solo. beneen wax tamit ca ñoom étudiants yi ne leen na comme que

Euh, ginnaaw def nañu première deuxième troisième quatrième ba cinquième amul euh, li nga xamante ni mooy résultat ñi nga xamante ni ñooy docteurs yi maanaam médecin ya nga xamante ni ñoo nekk fii ci diwaanu Sénégal indi nañ li nga xamante ni mooy seen sixième plan d' action euh, daal di décrété li nga xamante ni mooy 72 heures de grève

ba romb daal nekk si gilli gaal ndax ñun ñoo ko dee. Ah, feebar day bett mun ngaa tudd ku di feebar bett la. dëgg la voilà. Ah, Miss Société. waaw ku tëddee comme ni ko Adja waxee rek. koo mm. gis muy dox rek sax mm. wérut. Mm. waaw comme ñoom bu ñu garabee loolu du arrangement wu dëkk bi. nit ñi loolu arrangé wu leen parce que ñi ko feebar. ku ko wax ak ku ko waxul yépp kon nag dañu dellu si waat. daal ñu lijjante affaire yi. ba ñoom ñu toog fi ñu war toog daal. di liggéey parce que tamit xam

sport lañ euh, doon laaj ne dina am ak du am Balla dina ko jox sansam du ko jox ki nga xamante ni mooy promoteur Aziz Ndiaye ñëw na ci daal ne li nga xamante ni mooy combat Balla Gaye 2 ak Modou dina am fi euh, ci atum 2019 bi incha allah aja loolu lañ ci xalaat ah. <laughs> ah loolu moom. <laughs> dëgg yàlla su amee dina neex. Euh, askan bi askan bi. Mm-hmm. parce que ñëpp ñu ngi toogoon di ko. ndax dafa mel ni bokkoon na ci combat bu ñëpp doon xaar. waaw ñëpp doon xaar dafa nekk combat boo xam ne lu ñëpp doon xaar la. Mm-hmm. kon nag su ñu nee tey taxaw na. 2019 bi nag duñ def lu kontaan. Mm-hmm. waaw ah, moom nag dafa fépp rek daal. <laughs> ban moo ci sa mbër. non man nag aw ma mbër. Ah. benn mbër la am xam na xam na. Eh, xam na xam nga ay non non suñu kër neex na. Adja Mané man daal loolu li ma ci yokk mooy. ah espoir ah, la ñu wax. ñoom daal suñuy bëree tamit nañ ko def dans le cadre du sport. voilà parce que ñu def fair play. parce que gisoon nañ fii ñoom ñaar seen combat. dafay am toujours ay tension. voilà mmh. supporter yi fii. surtout dëkk bi yëngatu xam nga. surtout am ñu ñaat seen bakkan. Mmh. vraiment daal. Mmh. bëgg nañ tam suy am. ñu def ko. dans le calme. xam ni sport la sport la. Mhm. Mhm. Euh, yow Adja Maam ban appel nga ciy def ndax mbir moomee comme ni ko Adja waxee nee naa technicien la ndax gis nga ay côté fair play ay côté yooyu <laughs> techniquement Adja est insuffisable. Euh, Adja donc Adja Maam lan lan nga ci grande affiche la nag lu ñuy neex lay doon. Mm-hmm. waaw xam nga ñun yooyu dañ koo soxla. waaw <laughs> ñun ñun ñun waa. waaw man gis nga axlu lamb la wax. <laughs> ñun waa axlu lamb yooyu dañ koy soxla. Uh-huh. waaw nañu ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm rek. sa cumbukaay waaw dëgg la ndax xam nga lamb la ñu fii ci kii. <laughs> mais bu ma jël sport la ko. lamb lañ préféré. voilà fii sport bu uh-huh. mënti am tam lamb lañ. lamb mooy suñu cosaan moom la ñu xam. moom la ñu xam dëkk bi forom rek. loolu la ñuy waxtaanee. et puis ñi ciy gagné sax dafa bari. dëgg boo seetloo ni dañoo am jom ba bëgg plus tamit ñoom ñooy mayante xaalis. ñoom ñooy mayante xaalis. Mm-hmm. dañ sekk jàmm. te mm-hmm. xam la rek. bu sport bi jeexee ñu delluwaat la ay amateur laa toogal de xale yu bëgg laa mën aja foofu la ñuy ndar li nga xamante ni mooy actualité yi amoon tey ñu bëggoon leen ko digtal yéen ñi nga xamante ni yéen ñu safoo dañuy seetaan dañuy dugaat léegi dugal dimbal daal di ñëwaat indi li nga xamante ni mooy société à tout dans le cadre de bien faire et de bien servir li nga xamanteni la société taxna sa suné nak dañu am ko xamanteni ko juste rek pour ñu indil ay de société toujours rek mu ci cadre di bëggal ñëpp euh, jox ñëpp li nga xamanteni nañ ko té ñu ci émission bi le Fatoumata Baldé nak lay l'émission. sa suné mo ñi euh, société Fatou sank nak nga né da nga bëgg ci corps ak mm. lan incité lan à ce que nga bëgg waaw Thiat uh, tey boobu laa indi. pour uh-huh. waxtaane ko askan bi. Uh-huh. parce que dañuy gis ne comme ñu ngi ci weeru koor. Uh-huh. te weeru koor yàggul un mois rek la. pour man affaire ci suuf. waaye boo gisee changement bi may waxee. mooy euh, tey da ngay gis ñi nga xamante ne dañuy woor. te munoo woor ba ngoon jot. nga jël la nga yor war koo mën a dimbalee sa morom. pour mu ndogoo ko. nga jël ko dem pour jóg yàq sa morom nit. change boobu laay waxee. pour man. Euh, euh, nga woor ba woor ba pare di dem sax ci sëriñ. garaawul. mën nga dem defal sa yaram sangu. loolu kenn terew ko. dara nekk ci. mën nga génnee say sax. loolu dafa baax. mais fi may waxee mooy ñi nga xamante ne tey dañuy jóg. bu jël seen dërëm bu dem yàq doomu aadama. te am na ba waxee te dafa am. te mu nekk ay faits de société yoo xamante ne dañ koy dund. waaw dañ mm-hmm. te pour man weeru koor bii la. Mm-hmm. bëriwul. Mm-hmm. pour man ko war a a yi nga xamante ne yàlla yow am nga loo defoon loo ne leer na la neexu suñu borom. nga profité a fexe profité. ba waxee. ah amati na solo wax naa leen liñ ko dénk regretté wuñu tax ñu dénk ko ko ko ndax dëgg yàlla day gëstu te dañuy indi li nga xamante ni dafa nekk en conformité avec la société Adja tey xale bi gëstu na de. waaw hmm? Fatou tey thème bu mu indi am na solo trop. Uh-huh. ndax euh, ci sama xalaat. Uh-huh. dañoo nekk kuy musulman. Uh-huh. yokku ci nekkaat ci weeru koor. dëgg te weeru koor dafa nekk weer bu sell. dañ ko war a sellal ba mu sell. dëgg la man nag li may wax ci loolu mooy. sëriñ si. Hmm. ah comme euh, ay sénégalais lañu. Hmm. xam nañ li fi nekk. te dañoo ay gëm-gëm. dañoo ay gëm-gëm. Hmm. li ma ciy wax daal mooy. ñuy def lu bon. xanaa nañu leen seen i bagage toog. sagam yàlla sax nee na waaw sargal weer bi tuuti ko. waaw sagam yàlla sax. moom ci boobu ne day tax seytaane weer. waaw ah, ah. Hmm. ñu muñ rek. xam ñu jàppale ko ci loolu comme ñoom mënuñoo hmm. rek ba weer bi paase. Hmm. weer bi paase. Ah. bu dee dañ cay bu dee dañuy tuubi tamit ndax xam naa ne moom gis sa morom jullit di ko te yenn yi moom. dëgg loolu moom doy na waa trop trop trop ëpp na tool. Adja. waaw def lu bon moom defe naa weeru koor ak du weeru koor yëpp. Hmm. boo dee nit daf laa warul. waaw hmm. ah, weeru koor nag li ñuy wax ne def di weeru promotion defe naa def lu bon. Hmm. say bon bon gën a yokku rek. dëgg la def lu baax it say baax baax gën a yokku. dëgg la ko waxee ci weeru koor gi. mais defe naa daal dem ay seetloo yi man. par exemple man rek bu may dem di seetlu naan tànk bu ma jéggi ndax wax nañ ko. dëgg la ko ñëpp ci ne tànk boo jéggi dañ naan mooy loolu. te 40 jours ci julli yàlla du ko nangu. dañu fexe daal moytu ko daw ko sori ko bu baax sax. Mm-hmm. sori ko bu baax gën yàlla xam ne tamit lu am rek. yàlla yàlla ko dogal daal. dëgg la mu nekk ay réalité yoo xam ne suñu société sénégalaise dañ koy dund. Mhm. te wax dëgg yalla kenn ku nekk ci ñun ñi bu ci doon wax fii ba suba du jeex. ndax dafa doon lo xamanteni ñun yeen say li tax ñu indi ko sax bi ma ko waxee ma dama contane mhm. ndax imaginer Fatimata nit nekk ci fleur de l'âge mën am lu dul jeex ci adina mhm. nga dem yàq adina après yow est-ce que sa conscience tranquille dina la ko may. ah doo ko may mais nag day nekk loo xamante ne nii aussi. di nga am loola naqari. mais doo ko bokk ak kenn. day nekk loo xam ne doo ko bokk ak kenn. parce que mënoo tamit tey jii. pour man xaalis boobu ngay jël. dem di ko yàqee sa moromu jullit. boo ko defoon tey jii boo ko defoon ci sa bopp. boo nga jël sax koo tane nga ñëw dimbalee. dimbalee ko ko am ci yàlla. nga am ci yàlla. xam si am ci ngërëm suñu borom daal. waaye kuy def ko. nit mën nga di def lu bon ba benn instant nga xam ne kat lii du luy wëy mm. adduna bi dafa jeex ndax da ngay toogal nit tey mm. wala nga wax ak moom léegi jug ñu ne la deen démb xam nga te bu leen ne la li yóbbu loolu mm. kooku boobu la fi yow xam nga kon mën ñàkk tey booy def lu bon sax tout le temps tout le temps au sax weeru koor bi nga ne ah man de maa ngi doon def lu neexu suñu borom naa jéem a nag profité ah jéggalu ci suñu borom ndax yàlla jéggal la ndax weeru weeru jéggal la dëgg la su ko defee yàlla jéggal la say bàkkaar nga nekk ci leneen mën boo peesoo koor bi sax sa xel na nekk nekk ci leneen lu dul mhm. yàq sa moromu doomu aadama dëgg la amul solo amul sens boo ko defee tamit di dem lu la mhm. neexee mhm. ba sa ngi jot Mm-hmm. ñëw mm-hmm. ah dina ña dugal xamante ne mm-hmm. leneen ngay te jombul kenn ah, gis nga bërëb boobee ah. jombul kenn doonal président doonal lu rëy ci réew mi doonal doomu li naan doomu baadoo la sax ñu jéggal ma ci kàddu gi ndax amut kenn koo xamante ni rek yaa ngi dund bërëb boobee jomb ndax euh, ñun ñëpp ci yàlla la ñu jógee te ci moom la ñuy dellu en tout bi dina laal tey ñu bari surtout ñi nga xam ñoo ñuy suivre ci WhatsApp bi dëgg am na solo. waxati nga lu am solo nii rek lañ koy defee ah bëgg rek lañuy def di la di la dalal saa su ne ngay indi ay thèmes yu doy waar. la te Thiat nit bu ko yàlla mayee dara. yow soo soo ci bëggee. ñëwal ñaan ko. dëgg la waaye buy dem di ko yàq. bu yàqal ko àddinaam. yow xëy na yow sa wërsëg sax yàlla ci moom loxo bi. te bu dofee foo jëm. voilà te ëllëg moom mën na laa yor. mbaa mu yor say doom. Serigne Touba nee lépp loo xañ euh, ñaanee sa morom rek yaa ko xañ sa morom kon nag lépp loo xamante ni tey bëgg nañ ko nañ ko nañ ko euh, ñaan sunu borom mi nga xamante ni mooy subhanahu wa taala bu dee mën nañu ko may dinañ ko may mm. yàlla soxorul soxlawul kat-kat mm. soxlawul jës leer soxlawul xaama soxlawul étage yi gracier yi yooyu leen ba pare caat foofu li ma ci bëgg a wax mooy ñi nga xam ne dañuy jub di dem ci sëriñ si di ñaan mm. pourtant lu fi waaye ñaan mu nangu suñu borom la neex. ak leer nit ñi def toujours damay bëgg ñu xam loolu. Mhm. gis na nit mënul dara. Mhm. kenn xamul dara. Mhm. kenn mënul dara yàlla rek a mën. fii lu fi waaye def ñaan mu nangu. dafa neex suñu borom. ma tegal la ci dara Fatima yan saa yàlla dalay mel ne lu lay jaay. waaw nga foog na li nga nekk mu ci mooy dëgg. waaw te pourtant dalay bàyyi rek pour xool la après. di nga xam ne carrément lii li ma nekkoon yëpp. yàlla moo ko tayoon di ma xool. mais su la tamit bëggee. Mm-hmm. ah soo defee ba in benn instant war ngaa toog sa xanaa uh-huh. ne ah man de. Uh-huh. maam jaw bi ba mu ko dalee def ni ma koy def ba tey. Uh-huh. maam jaw ngi dox mi ngi rek mi ngi naan. mi ngi am mi ngi ci jàmm mi ngi avancé. te man ngi may raw gis ngi may raw te ngir maa dem fenn. kon biir est-ce que du ma jéem a xoolaat sama bopp fi ma teg sama tànk ma jéem koo teggi. xool leneen lu baax lu ma war a def. xam nga loolu am na solo tam xam nga tubaab. Mm-hmm. chaque jour ay moom dafa jar di bàyyi xel.

synthétiser boobu mais nañ ko def ci weeru ko mu ngi noonu. mais sëriñ si nag tamit. Ah. ah ñoom itam nañu xool seen diggante ak seen borom. ah, ah ñooñu sax ëllëg. suuf lañ jëm. Ah. xam nga ne ñooñu seen jugement ak sunu jugement ñun du bokk. ndax dañoo jàng. Mm-hmm. xam li yàlla tere. Mm-hmm. xam li yàlla bëgg. Mm-hmm. bu baax a baax a baax moo tax seen ñoom seen seen seen acte ëllëg. du bokk ak sax suñu àtt ndax dañoo xam lu kenn xamul. Mhm. war a dimbali sénégalais yi ñu ngi ci jàmm. seen surtout loolu dafa am solo. nit ñëw dana defal ma diw nangam. Mhm. yàq ko def nga yàq. yàq yàqal ko àddina. billaay waajuram sonn. Ah. fu nañu daw fa jëm. lu ñu am jaay na te bëri ba nit ñu baax ñuy gis. Mhm. ñoo xamante ne ñu ngi nekk di def safaan wax. du ñoom de. di leen koy defloo sax xamuñu ko. déedéet kay. bisimilah lu leer laa lay wax. lu am solo koy def loo xamuñ ko. parce que def nañ leen loo xamante ni est ce que xam nga ne sëriñ dina la def loo xamante ne dina la boole maanaam jinne lay doon xaw ma lu saay saay. loo xamante ne da lay xiirtal ci lu ñaaw rek ñu ko def. fekk na yow du yoon yow. dëgg li la koy def loo. lu mu la koy def loo xam ne lu ñu la xabtal la def la force la koy def. li la koy def loo sax doo ko tax. yàggul dara waaw dama doon dégg ko fa man dama tiit.

la santé avant tout ba tax na bien-être ci nit ki sa su dañ ko war di gëstu pour xol kenn ku nekk mba xam na nga toge baxna la nga lekk baxna wala tay ji sa wàllu wér gu yaram it tout est nickel ba tax dañ ko dégg ki nga xamante ni mooy Adja Mané sunu experte en cuisine mhm. et en santé Adja sànq nak nga ne da nga ñew ci li nga xamante ni mooy gingembre ñu koy wowe jinjeer euh, tay ji nak ñu bëgg xam rek euh, lu tax nga jël mbir moom ak fan lañ koy faral di gis origine yi fan la euh, jinjeer nag moom. Mhm. dama gis ni. Mhm. lu am importance la. Mhm. ndax fi nit ñi dañ koy faral di utiliser lu baax. lu bari daal. Euh, moom nag ñu ngi koy faral di ñu ngi jógee ci Inde. Inde waaw euh, original end la. ak Malaisie ak Malaisie waaw foofu la jógee. man kay foogoon naa loolu. li nga xamante ni nag ay vertu la bari na lool ak ay bienfait yu muy def. voilà. balaa may ñëw ci bienfait yi da ngay ñëw composant yi. ci composant yi nekk ferñeent yi nekk ci biir ndax ñu ci bari xamuñu ko. voilà mm-hmm. jinjeer ma dinañ ci gis ay. kii ñu koy waxatee sax. ay sels minéraux. bu ciy gis. ba pare am na magnésium. calcium. sodium fer. ay vitamines B1. B2 ak B3 dañ ko ciy faral di kon moom riche na. am na tam am na lipide am na protéine. am na glucide. moo tax mu riche. mu riche voilà. nga ñëw ci bienfait yi. léegi bienfait yi. li ma ciy wax rek mooy. Euh, anti cancer la. ah comme ni ko tubaab di waxee cancer de l'ovaire. voilà ci ajaan xam la ñuy faj de mi ngi ci sunu ak colon mhm. tamit. Mhm. te da lay permettre tamit nga am digestion bu baax. Mhm. voilà ngay digérer na nga si. ba pare euh, da ngay da tamit. comme.

pollution bi dafa bari. boo koy faral di naan. tamit baax na ci pollution bi. dëgg la dëgg la effectivement donc lii mu wax daal am na solo trop trop man xaw ma ko ci woon en personne xaw ma woon ne lii yëpp jinjeer dina ko def. ba pare dina la jox kàttan. dina la jox énergie. déedéet kay waaw. ah baax na ci góor baax na ci jigéen baax na ci mag baax ci mag. aja mbir moo gis nag mu am ay bienfait war naa mën am ay li nga xamante ni ay méfait yow nag yan nga ca cité. boo koy boo koy boo jëlee dose bu xaw a bari. mën na la indil problème. mën na la indil jaare. voilà jaare léger daal. voilà mën na ko indi mooy biir bu daw. na la indil tamit euh, problème cardiaque. waaw waaw te indi problème cardiaque mais yooyu soo koy def euh, euh, bu dee daf lay indi problème yooyu. da ngay diminuer dose bi. dose bi nga koy def. parce que mu bañ a force daal parce que organisme. dëgg xaw ko adapté wu.

oui parce que mën na mën na leen mën na leen jëndal. Mhm. voilà nga dem si sa voilà si sa gynécologue. bala nga koo naan daal nga dem consulter sa médecin. nga dem sa médecin sa gynécologue mu mhm. xoolal effectivement euh, moom jinjeer mi nag gis ngeen li fi ki nga xamante ni moom la Adja Mané wax am na solo trop waaye Adja moom moom noonu jinjeer yan utilisation la mën a àndal maanaam ci lan ak lan ko mën a boole man yenn saa jus rek laa ci xam waaw jus da nga koy def jus mhm. Sénégal moom jus lañ mhm. boole ko sa citron mhm. moom dafa a baax Kiné Ndiaye da ko boole ci ravitaillement ndax nee na da koy boole ay ginaar ak yooyu waaw dafa day day wàññi cholestérol cholestérol. voilà waaw mooy ñu am yaram ñi dina xaw a wàññi seen graisse. surtout surtout boo koy ba pare dañ koy utiliser eh, si uh, médecine traditionnelle. Mm. voilà gars yi dañ koy dañ koy utiliser loolu. ko def tam ci sa pâtisserie. donc voilà pour mu am tuuti goût jinjeer. voilà nga parfumé wu quoi. am solo voilà bu la neexee nga def ko ci sachet ci teew yooyu ah li mu indi am na solo Adja Mar sànq defal nga ñu fisi yu jinjeer bu baax bu oyof ah yow xam nga jinjeer mm-hmm. <laughs>

tout texte sax nag inclusif dëgg yàlla moom xam na si dara ndax moom mi ngeen di gis euh, <laughs> dafay jaay ay affaires yoo xamante ni euh, wax dëgg yàlla yu mucc ay ko ko jinjeer ko ko jinjeer atam ko ko jinjeer yow loolu la waaye xam na yaa mu génn uh-huh. daf maa laal laal laal man maa bëgg jinjeer dama ko uh-huh. bëgg ba nga man koy naan uh-huh. nit ñi ñu koy def sax ci def man ma ci def ah boobu sax moo gën a. mën a fekk moo gën a a fekk. Mm-hmm. parce que bu fekkee yow yaa ngi am graisse day yokk sa graisse. Mm-hmm. mais tey jii booy naan jinjeer bi nii amul graisse. Mm-hmm. amul amul suukar. Euh, graisse bu fekk sa biir rek. da koy génne ba pare ay wax la benn mbir ci jinjeer. Uh-huh. gis nga boo amee problème mu nelaw. Mm. naanoo jinjeer. déedéet kay. parce que soo ko naanee. Uh-huh. yaay raw xaar. xoolal da ngay nelaw nelaw yu jërëjëf xëy na la woo sa téléphone bi jàkkaarloo yow di ah, sonné te doo ko dara la kon nag dara du ko kon. maa di yow la dama ñu jaay dama cee am wàll ba pare xam ne dama koy faral di jaay. utiliser yow da nga ciy use lu bari yaa ngi ciy use. gars yi bëgg nañ ko. parce que xam nga lu muy raxasee sa deret bi noonu. xam nga ngay digérer bu baax. xam nga ballonnement. gaz ñii yow Adja comme tey yaa ngi wàllum santé est-ce que yow instant bii nii doo ko digal ñi nga xamante ni fi mu ne nii ñoo lay seetaan ndax ñoom ci koor te xam nga ne ku ne koor lekk yi day tegalante koor bala bala voilà voilà mën nañ di naan jinjeer bala, yi ñu nowoo ba mm-hmm. pare voilà mm-hmm. parce que baax na ci ballonnement yi mm-hmm. ak gaz yeeg jalis daal laa jalis bala, sang day jalis <laughs> <laughs> voilà te énergie bi nga perdoon bala, le soir ci journée mën surtout marié yi dina la énergie aja Euh, maam Diaw. Faatuma da li tax ñu dénk ko affaire bi am na <laughs> moom li mu moom daa mel tey man ab lii laa toogal. waaw ñun chaque jour li ñu utiliser rek moom mooy ñëw wax ñu lan moo tax ñu gën koo jàpp. xam nga man sama saal bi dañuy jus rek. Euh, dañuy jus bu ma xamoon ni ngay tàggaatee dinaa la tàggaat <laughs> ndax léegi ñu wax xamuñu ko woon. acca waxoon naa leen lépp loo xamante ne nag wàllum santal ak cuisine dañ ko koy dénk ndax dafa doon ndaw lu mën a dénk mbir wax dëgg yàlla mu doon lu am solo jinjeer nit ñi daan ko daan ko utiliser daan ko xool ni rek te xamuñu fat ñent yi mu am tey Adja Amani ñëw waxal ni ci loo xamante ni wax dëgg yàlla ñun xamuñu ko woon franchement kontaan nañu ci yow di la wax rek incha li nga indi neex na. duñu def rek lu dul waaw yéen téléspectateurs yi ak auditeurs internautes yi nga xamante ni yéen a ngi seetaan. dañuy ñëw rek nag ndax am na ñoo xamante ni Adja Mame Diaw rek la ñuy xaar mm-hmm. tout de suite lay doon ak leçon du jour na naa ci cim réew kilifa bu magit it na naa ci biir kër ba sax ba tax na sa su nak li euh, lii di euh, Ramadan chez nous dafa am ko xamanteni ni ñu fi togal en tant que personne morale ñu def ko sunu dame de maison muy Adja mam Diaw mom nag toujours moo ñuy dikkal ci li nga xamanteni moy mooy leçon du jour Adja ma. am Cheikh tay de mën nañu ma indi leçon bu baax mm-hmm. parce que fi mu nekk nii ñu ngi ci defe naa ñu ngi ci fukki fan jéegal yi. dëgg moo njëkk waaw ndax yàlla moom fu bëgg jéegale. yàlla parce que boo seetloo ñun chance yi ñuy may ñu ko mayaat. da def ba takk mu ne la. boo jéegaloo ma jéegal wala boo naa loolu ci ñun la la gën a yey. waaw ñu bañ a soxor. jéggalante. ubbi suñu xol yaatal ko xam ne ku la def rek. xëy na xame moo tax mu def la. dëgg la parce que nit ci ngeen bokk benn Sénégal te du ngeen gis yow kon bu ñu xamante yi ci juddu mooy defante yeeg yooyu mm-hmm. dañ koy muñ mm-hmm. te nit bu la defee nga ne soo bu yàggee nga yaram moom dëgg la mm-hmm. maa la gën a bon maa la gën a soxor am désir nit bu baree yow nga war ko lu baax defe naa di ko changé di nga yàlla ci moom di nga ko walit ne ko lii mooy àddina bu kenn fayu daal na ñëpp jéggante yàlla ah wax dëgg yàlla am na solo man sax dama koo xoolee mais ah wax dëgg yàlla li mu gën a am na solo ndax xam nga la dañoo nekk ci pays boo xamante ne dañ ne pays de la teranga la ah warut a nekk pays a nekk pays méchanceté warut boo xamante ni tey dañ dañuy wax sax Sénégal nit ñi ci dëkk di rus. dañoo war di jéggalante ah li tax ñu teg ko fi tey ba wax ne ko lii yaa ñu koy defaral muy leçon du jour yi wuñ ko ndax pardon dañ lépp. Adja mën maa tey def lu yaakaar ne du ma la baal ma ne la jéggal naa la da ngay sanax. waaw li ngay def ci moom mooy moom mooy rëy. non da ngay sanax laa wax sanax lay. fi njàng lay doon ci moom bu boobaa. Mm-hmm. da ngay da ngay da ngay surprendre ba yow mën nga faa jaare rek yow. doo ko defati benn dara mi ngi noonu. ba pare nit bu jullit sax dafa war di jéggale. Mm-hmm. parce que dañuy su dem ko ko mu jéggal. ñu ngi noonu nit a mm-hmm. naan. waaw te yàlla mi nga xamante ni moo ñu sàkk bu ko neexoon benn guddoo yóbbu ñu àllaaxira moom toujours ñu tooñ. toujours sànqee sax sa doom sax mu ne ñu man mi ñoo ngi gën a mën a tooñ. am da ngay jotee a nga dese sa gàcce bi ci gën a bon nag mooy yàlla la nga xulum ba mu dem. ba gaañu yow nga des fi. dootoo da dul tranquille doo nelaw parce que da nga naan te bu doon sax nag bi lay gën a rey mooy bu doon koo xamante ni sax ko na pour nga jéggal ko daf. nga bañ nga bañ kon bu baax. Mm-hmm. bu njëkkee ko ci kër yi. sa doom dëgg la dëgg la saa yu xëyee. Mm-hmm. sama yaay de nit koo jël def ko comme sa bopp. Mm-hmm. en plus de cela bañ a ànd ak moom ci jikkoom mais ci sa jikko. doo leen mën a defal ñëpp. waaw ndax euh, àdduna du chaque jour ni nga mel loolu la nit ki forcément war a nit ñi yemuñu. ni suñu loxo yi wutee noonu la. noonu la xel yi wutee waaw wax dëgg yàlla. waaw may tëjee daal. Euh, li suñu xalifa ba waxoon ak am toog yàlla na suuf woyof ci kaw. Mm-hmm. yàlla yàlla yokk mm-hmm. li mu ne nit ku ne jëlal yàlla dugal ko sa xol. ndax yàlla màgg na màgg boo xamante ne xol bu mu dugg daal du ca xaj. waaye nag boo fexee ba mu ca. Mm-hmm. dana fa bàyyi vidéo boo xam ne lu ñëw dina ci dugg caag gis nga ba jéggale. Mm-hmm. dafa bokk sax ci bonne santé. Mm-hmm. billaay waaw parce que jéeg damay vengé dama ko def loolu rek coono lay doon ci. kon nañ jéggale te yàlla tax. nañ dafa mel. kii vengé wu toujours nag sax nag maam euh, dafay mujjee euh, lay dëgg yàlla. Mm. na eh, yàlla moo gën a war a mën a mën a fayantoo. te fayulal kenn te pourtant du fayantoo ñu ñu daay te ñu ngi dégg. waaw ñu ngi nii ci weeru koor. Mm. ah def suñu décolleté. waaw dañu tooñ la di waaye. ah, ah. <laughs> jégal nañu ko ko ah yàlla kon bi am na solo Adja man wax dëgg yàlla kontaan nañu. Euh, tey yaakaar naa ne ñi nga xamante ni ñoo ñu seetaan tamit na nañu ñu ne émission bi nag ñi nga xamante ni noonu lay euh, demee saa su ne wax rek daa am groupe WhatsApp boo xamante ni day am ko toog ne ba bësal lépp lu ñu fi wax da koy dégg euh, am na nag ñoo xamante ni dañu ciy participer kii nag xaaral ñu xool tey li nga xamante ni am nañ ko tey ay kii de turandoo Fatoumata la nee na plateau bi neex na ma wax dëgg yàlla Adja Maam Diaw indi ci lu am solo ndax boo seetloo koo xamante ni sax du jéggale foo ko fekk xol ba day wow moom ci boppam du am yaram ah clash bi nga xamante ne dañoo jeex de. <laughs> doole ko ne dangay ah, <laughs> ñaawaale ah. Adja moom Fatoumata loolu la wax kii mi ngi tudd Tamsir Diop Tamsir nee na moom yëpp bi ko ci neex mooy bi Adja Mane wax ndax nee na jinjeer moom noonu moom xam na bu baax li muy def ci moom ndax na koy utiliser dafa mucc ayib moom Tamsir <laughs> Adja euh, kii nag moom ab sëriñ nee na waaw je me présente man Mara Boula euh, ki nga xamante ni mooy Fatoumata Baldé li mu wax am na solo moom nag joxewul turam waaye nee ñun ñi nga xamante ni ñoo xam Alxuraan te jàng ko déjà ba nga waxee lii dañoo daf ñoo touché voilà nee na mbir mi touché na leen waaye tamit mi ngi ñaax ñi nga xamante ni ay moroomam lañ te dañoo nekk ci ci maanaam. liggéey boobu ak activité boobu ndax loolu tamit liggéey la nit am jaaxle mm-hmm. sonn nga dindil ko ay problème tamit mm-hmm. ñaa ngi ko utiliser gën moom nag loolu la wax moo gën loolu la wax nee na waxul sax ci weeru koor bii ñu boolee koor ak euh, maraboutage mais dafa war a doon loo xamante ni képp ku ñëw euh, laaj la mbaa mu ne la damaa bëgg nga defaral ma benn mbir mu safaanu ak li ñu digi mm-hmm. nga indiwaat ko

aca loolu am na solo bu baax a baax a baax kii nag wax dëgg yàlla yow mi ngay présenté émission bi neex na ma loolu ah ma nit kontaan naa si yow wax dëgg yàlla sama sama xol sedd na bu baax a baax si yow dañ leen di tàggu nag ndax saa su ne nii lañ koy defee waaye tàggu la boo xamante ni du doon pour toujours éternellement euh, moom macha allah chapeau. dinañ fi neex lu ñu aja ngay tàggoo ñi nga xamante naa leen tàmm rek. di leen jaajëfal di kontaan ci yéen. Mm. xam nga di wax ne Fara Bleu rafet na macha allah. xale yi tàq nañu ba yàlla. bokk na si xol maam ay dara mu def. Adja maa ngi doon benn noir rek ëpp na. Ah! rek sama yi rek. gis naa sa jaune gis naa sa jaune. ah ëpp na maa leen uh-huh. uh-huh. ah. gën a garaaw. waaw ah, am solo incha allah incha allah. Uh, Adja naa leen ko moo ñuy defal lépp xamante ne wàllum santé la cuisine Ah, tey car li may tàggoo simple la rek comme ni mu ko waxee toujours. Mm. li ñuy consommer dañ koy consommer toujours avec modération. boo mm. ci abusé parce que boo ci abusé. Mm. ak lu baax baax baax. boo ci abusé mën na la indil ay gàllankoor. dëgg la dëgg la man daal bëgg naa bëgg naa la ah madame Ciss. waaw kontaan nañu bu baax. di wax tàggoo bu dul tàggoo rek. ba beneen numéro suñu bopp. Adja maam nag tey daa mel ne da ngaa yàqam tey ta day kañ doo bàyyi ba ma tudd. <laughs> Ah, Adja tàggoo dama lay tontu. <laughs> waaw di wax tàggoo bu dul tàggoo rek. daal di suñu mbokk téléspectateur yi. ñu wax te bëgguñu woon mu jeex mais nii rek la mënoon demee. 3 minutes de détente yi defe nañ ne neexoon na rek. kon ba beneen yoon rek incha allah. alaaji Doudou ay dara deful de. la muy waajal xam nga cin bu dalee neex su waxee dafay neex. ah la ñuy waajal ndongoon nag après rek. invité na leen yéen ñëpp macha allah alors chers amis téléspectateurs internautes yi lii lañ leen

strengthen my